Seydina Muhammad sang sang yi yal na sëy bi barkeel nga am ci njaboot bu barkeel taal ko ventilateur jaay naa mun naa lekk. man maa lekk sama soxla jaay naa mun naa lekk. borom yaay ju baax borom yaay ju dee teelu borom yaay ju mën gis sëñ Tuubaa mun naa nekk. xale bi bëgg ay waajuram nag yërëm ay waajuram mun naa nekk. naa ko semence bi mun naa nekk jaay naa. baal boobu ah baal. ki nga lool yoo xam nga ngay dégg aéroplane ak ki ngay yëg ci ko sant normalement réew mi dafa fi dara faat nga am jom niin ak yooyu yaayu arab bu baax bi tubaar fa kàlla macha allah bokk ndayu awa gay bu yàgg lool tubaari kàlla lii tey jomb la lu mën a nekk la bëgg arab teg ci bëtam arab nag arab def ko yaay borom la ko la ko def moom mi daa la ko def alam soxoru iñaan day tey jii dañuy zible xoolal écart Touba Mbacke soxoru iñaan may na la fan Mbacke jàmm suñu xol dafa sedd nii rek lay baax bëgg ay mbokk ak sa yaay Mbacke yonent bi tuuru de bis bi xamoon nga ndaw lay am dangaa bëgg sa yaay tubaab dana la nga ne maane dafa nag lajjara ne dinaay dëgg ñëpp woo maane ñëpp xam nañu famille seen mère dañoo jaaxle moo ci gaaw sama doon a barke yonent bi ñëppal la ko su mel ni da nga koy am loolu dafa sëyee yàlla fay la ko barke Seera Fall loolu dafa sëyee fay rek lay fay fay lool yoo xam nga ne dañuy gërëm ak ki ngay yëg a ko sant normalement réew mi dafa fi dara faat nga am jom miin ak yooyu yaayu arab bu baax bi tubaar fa kàlla macha allah bokk ndeyum awa gay bu yàgg lool tubaari kàlla lii tey jomb lu mën a nekk la. bëgg arab nag bëgg yaayam jéem ak jéem arab def ci ba taw arab def ci aram soxoru iñaan day day di dañuy zible wala Mbacke Sëriñ Tuubaa Mbacke soxoru iñaan nee na fan Mbacke jàmm suñu xol dafa sedd nii fan la baax bëgg ay mbokk ak yaay Mbacke yonent bi mooru de bis bi xamoon nga ndaw ak dangaa bëgg sa yaay ñëpp xam nañu famille sëñ maire dañoo naqal ma ne ci barke yonent bi ñëppal la jaalawaali jaalawaali jaalawaali ngoy ada déglu ma nag ma way sama sët be ma jeey fatim penda ma ñaay la suka be jeey ko ma fade o fade dake lamkine amboya de fari kala mane la ñuy wooye sa yaay mane soxna la ñuy wooye yaayam masre sa jey fatim penda ma ñaay la ñuy wooye sa yaay faatu la ñuy wooye sa yaay yugaay baayam damel ma samba takko damel amari ngone sabel ma sigéeg ma joojokuli kumbaak daaw yaande ko fe faryataake lamkine amboya de fari kalama malaw lañu waya sa yaay wayak yaay baba jaañ maye jaañ demba tabara jaañ demba maa farba yaasin jaañ demba mbokk yaayum soxna faal sama doom ji taaw jëkk a judd jëkk a baax taaw neewuloo kenn baral layoo bi jeeg bu doom ya màggee atte yaay sa yaay dafa layoo jeeg di ba yey na leen ko fee ma dañuy zible wala écart Touba Mbacké sama ñaan ñe na fan Mbacké jàmm suñu xol dafa sedd ni wala da baax bëgg ay mbokk ak yaay Mbacké yonent bi mooru de bis bi xamoon nga ndaw ak dana bëgg sa yaay dana nga ne maana dafa na la jëral ne xamoon la dëgg la jëkkoo maane nañu soxna si maa ngi lay maa ngi fay chéri ma bokk ak Fatou Mbaye Fatou sama doom la maamam lañ ma tuddee ku jur yaayam moom lañ sànq ba tey damay gis ngay jooy jooy yu metti lan moo waral jooy sama xol moo sori faat ni mu mel sama bàjjan rek la ko nuru moo tax noonu rek la mun a mel faatu dafa sonn kër papaam faatu ñëw fa ay rangooñam faatu baax na bëgg na ay mbokkam bëgg na yaayam te ku ne xam ne dafa naqa deret mais faatu xoolut yëpp loolu may di nga lekk di nga naan so loo yor ci àdduna dina la ko yéene loolu nag noonu mu mel noonu sama bàjjan la ko nuru muy maamam bi jur yaayam moom rek loo nuru ma koy ñaanal nag lépp lu mu am ren na am déwén la ko la ko raw sa lii nii bettu ko soow jombut pël benn yoon faat nit ñi déggaguñ ko nit ñi gisaguñ ko dañ ko gën a dégg dañ ko gën gis incha allah lépp lu mu defal yaayam dafa jàppale yaayam jàppale papaam. yow ak ay waajur ak ay ak ay waajuram relation normale relation bi doom defal waajuram moom la Fatou defal waajuram defal ko rakkam bu mu bokkal ndey ak baay ndax moom. moom benn càmmeñ rek la am muy paap lépp ginnaaw yàlla ak yonent bi moo jàppale càmmeñam jàppale jabari càmmeñam xanaa xale léegi dañuy dañuy concurrence Fatou moo naa jël jabari càmmaneem ji def ko wujj mais jabari càmmañ su baba ngoon lépp lu nekk moom fan mbaakee ko ci def Fatou xoolu jabari càmmañam baax na xoolut bon na lijjantiwul lool càmmañam la bëgg taf ko ci xolam jël yaayam taf ko ci xolam yaayam ak ba mbàkke mais dara manqué wu à cause de fan mbaak sa du ko neexoon mu ne maa ngi Dakar du ma lijjanti sama yaay mais dafa lijjanti yaayam lijjanti ay mbokk yaayam lijjanti ay tantam bàyyiwut këram da ngay lekk da naan mu baax yaat mu ne maa ngi koy ñaanal ci doole maam faat lépp lu mu am ren na ko am déwén yàlla nañ koy séen comme jumaay Touba Moussa mbay moom ñu ngi koy remercier moom moom ñu ngi koy remercier bu baax a baax di ko wax yàlla nañ yàlla musal ci cet ak saytaane bàyyi koo jabaram ki nga xamante ni moom moo di faat Mbacké nekk ku siiw ci réew mi te ku nekk xam na ni siiw ci réew mi yombul ngeen nekk ay mbokkam di dégg ñuy teg ay kàddu yu ñaaw ci daram tey su ngeen déggee loolu naka ngeen koy dund non dundewuñ ko dara xam ne wax bu bon dëkkul fa mu jëm fa mu cosaanoo ndax Fatou fi mu bokk ku ne xam ne nit ku baax la ñëpp xam nañ nit ku baax la Sénégal nag ñoo bëggul kuy dem dañu bëgg ku ñuy yërëm Sénégal doo soloo rek bëgg ñu la il faut que ngay sol ay sagar pour ñu la yërëm te Fatou dafay avancer dafa romb ay moromam dem looloo tax bëgguñu ko mais amul amul solo sëy bi dama ko wax mu sëy ba dee rek comme yaayam ak ay mbokkam ndax ñun suñu famille ñëpp xam nañ dañuy sëy ba dee biñu daan judd dañ daan takk ci ñun sagar ndax xam nañu fama buy jaboot lañu fami sëykat lañu moo tax moom day sëy ba dee far foos la da koy def incha allah rabbi ok ok merci beaucoup. na ku fekke sëy bi yàlla na nga fekke ngénte la munu laa fay waaye yàlla mi am pay yàlla na la yàlla fay nee na ba ngeen àndee démb la te dara ñaawut nee ku sonn yaa ci gaaw ku jaaxle yaa ci gaaw di koy gaynde Fatma nee na problème bu xar yi sa xar ji am yaa ci gën a gaaw nee na yaa baax yaa leen di digal lu baax yaa leen di jiite nee na yàlla am jàmm nee na seen ànd bi yal na ngeen nekk benn say. yàlla bu ngeen tasaaroo nee na sa kër la ñëpp yi daje nee na dañu dañu teg seen kër ñëw sa kër te bu nu dikkee lu baax rek ngeen fa nekke defante lu baax wax lu baax ngay togg ci mbana di yekk ca booli yekkoon nag dafa dal fa mu daan dal noonu nga nàmpe loolu nga nàmp waaw nee na teguloo tegoo leen bët te it fa ngeen dëkk tegante bët rek a fa nekk waaye tegoo leen bët ruute mbalewu leen jaxase woo leen yàlla na nga yeggale sa sago nee na lu nit am ci lu baax yéene nga ko Fatou Diagne yaa baax Maye Diagne Demba ak Tabara Diagne bu ñëpp ne yow ñu ne yow yal na la jig yal na mel na doxum galaas lii ma yor nag teel ma monsieur journaliste teel ma. ñaari junni. ñaari ci Awa Gueye jëm ci Fat Mbacké sama waay ji sama doom sama xarit. waaw waaw ah moo joxe ñeenti junni. vingt ci Awa Gueye jëm ci Fat Mbacké. ah awa lii lu joxe na juróom benn junni. trente mille ci Awa Gueye jëm ci Fat juróom ñetti junni ci sama doom ju rafet Awa Gueye jëm ci Fat Mbacké doomu ndayam. fukki junni woy fukki junni. et waay mille cinquante mille. ba ma la joxee cinquante mille. pareegul day dem. maa ngi leen di ki ñeenti junni la. dëgg la muy fukki junni. lu mën a ne. waaw ci awa gay jëm ci Fat Mbakke awa nii rek lay mën a demee yaa juddu ci réew mi dëkk ci réew mi di fi def lu baax waaw waaw nii lay demee awa gay yaa rafet jiko xaw ma danga koo juddu waale am na la ko yare waaw waaw yaa rafet jiko awa pareegul day dem soo ko iñaane woon mm-hmm. da nga koy soboote dëgg la waaye tubaar fakkal la masàllaa mm-hmm. ñaar ñi rek a mën a am mm-hmm. seen ànd bii yal na ko yàlla yëg diw ci diw rek a ngeen ànd bu rafet nag yow li nga wax da nga koo jëf mii ñu tol réew mii ni mu méttee tase weeru koor nga yëkkati fanweeri junni ñëw yëpp ko sa doomi ndey ji teel ñeenti junni ñaar fukk ak juróom ñett way awa baax waaw awa geyu noobal nga waaw awa baax man sama doom ji noobal la kaar way ne kaar noobal la mm. soxnaay nee leen kaar non ba nga macha sama doom ji yàlla nañ ko fekke te toog ba léegi ci defu allahumma amiin tubarkalla macha allah waaye nag tey nee naa ko Fatou ku fi ñëw rek tubar fa kàlla macha allah lebal si wala dalaa fay si ndax tànqam lu kenn ba tax na bay Modou kan masa taag masa yar ndaak sa góor ki la bëgg dooleel mu yàgg lool tubar fa kàlla macha allah ndaw talam day ñëw ci yow. ndax nee na tubaar fa kàlla macha allah boo wootee loo lambe sax dañoo indi ay morsoom takk yaa bëgg Baye Modou yaa ko doyloo yaa ko sopp yàqaloo ko dara riita mbale woo ko fenn Baye Modou loo sol moo ko ñaw te tubaar fa kàlla macha allah nag couturière nga mais dangaa yàgg ak Baye Modou man ma yàgg a fekkee tubaar fa kàlla macha ba tax na Baye Modou kat mooy ñëw ci fan Mbakke. Baye nee na mi ngi lay ñaanal sa sëy bi barkeel. mi lay ñaaral nga sax dàkk ci sa sëy bi tubar fakal la macha allah ku ne xam ne ni Baye Modou kan ak ni mel ak yow ma sa tag ma sa yer ndaa ku ne xam ne ni muy def ak ay jigéenam jigéenam bu woote loolu lambee tubar fakal la macha allah day indi ay morsom takk te ci weeru koor la te takku jàkk lañ def Baye Modou nee na cinquante mille ci faatu Baye Modou nee na ma sa tag ma sa yer ndaa suñu góor ki ñu dooleel ki ñu bëgg ki ñu fonk lu ñu xewle mu taxaw ba mu jeex tàkk 100000 ci Baye Modou Kane tubar fakal la macha allah miwlu miwlu bi barab borom sawrum bi ci Masalikul barab borom sawrum bi ci Cambérène 2 teel a xëy guddee wàcc chéri maam Diarra bàyyi Alioune Prince 150000 la laal Fat Mbàkke te dafa tombé koor defuñu dara takku jàkka tubar fakal la macha allah na na sëy bi seddu guy te jik la. nee na nga sax ci dàkk yàlla defal la ci njaboot gu barkeel tubar fa la macha allah damaa bëgg nag yéen internet bi ngeen xam ne fa fan Mbàkke lii mu rëkk bàyyi Modou Kara ko ñaw tubar fakal la macha allah heure rek heure bi jot nga dégg heure ménage madame Mbaye tubar fakal la macha nga yeggaleeg sa sago la la la jàmm la macha sëy rek. dépense bi manqué na ñu dégg sëy. sëy rek. ba sëy. sa yaay ni jëkkër ji daa sëy. ba sëy jigéenu barke mbam ko yem way ko neenu bokk digg tool taxuta yemu daa gax nga neel neegu yaay man kenn ko wax ku ne xam nga man da ko dul nangu xoolal bañu loo ko ba pare eh, bañu loo ko ba pare eh, yow nee na leen wax. nee na yàlla wax ko jàpp. dinaa nekk xam naa bàyyi jëm Saalum wala yu Fadi Yacine. donc jot na ci sëy bi donc jot na ci mariage Fane Mbacke. yéen maa yéen a ngi doxu. donc jot na ci mariage Fane Mbacke. lépp lu ma war a wax kontaan wax na ko dama kontaan ci bis bi di ko ñaanal suuf bi baax na am ci njaboot bu baax mais sa noire sœur la. fast. Uh-huh. monsieur Mbaye mu ngi fi. lan ngay wax monsieur Mbaye. ah monsieur Mbaye dama koy ñaanal rek di wax yàlla ma yàlla bàyyeek moom ndax la koo xam ne daf ma bëgg bëgg bu sincère wéttali ma accompagné ma assisté ma ci lépp ba yàlla boole ñu tey ñu sëy mu nekk sama jëkkër yoo xam ne macha allah laf car yàlla na ko yàlla defal ak jàmm dama ko bëgg. ba mu yàgg gisatul la ci réseaux sociaux dégg heure ménage loolu lan la. Ah, booy dox ba ci yàgg da ngay stand by sa vie xool noo koy programmer ak noo koy organiser loolu rek dama dox ba ci yàgg ma xoolaat xam li nga xamante ni mooy dëgg te mooy mujj ma concentré wu ci yàlla def ko tey mu daal di mat loolu rek na du leneen. waaw wax wala ñaareel. aw <laughs> damay dama koy wax nga yàlla defal ko jàmm rek sama jëkkër yàlla bàyyi ma ak moom te kenn bañ a xaaj suñu diggante ndax vraiment nit ku ko bëgg laa ñu ma am <laughs> na ma yàlla bàyyi ak moom rek benn noonu bañ ñu a dugg la sama papa la sama la sama xarit la la waaw ma bëgg ko lool bàyyi moom du kan ma si tàgg ma ni ma nekk moo ci

taaru jigéen mooy sëy mooy sëy normal géré ut ay famille ndax Miss Monde dafa war ay rakk normal <laughs> ah, <laughs> merci beaucoup Fatou maa ngi leen fay yéen waa sans limite dañuy ñëw ñëw ci li nga